des populations sont grandes. waaw li ñuy xaar ci li nga xam ne mooy askan wi yaatu na lool waaye tamit war nañoo gën a mën a indi ay coppite ci seen dund loo xam ne dañ koy daal di gàlloo dafa delluwaat ci anam yee ñuy liggéeyee li nga xam ne daal mooy nekk ci ñun rawatina ñi nga xam ne daal mooy gouvernement bi. li ma ci bëgg di wax rek mooy la ma cay xaar moo ci séminaire bii waaye tam bu ngeen ci génnee ngeen mën a am ay jumtukaay ay xam-xam yu am solo waaye tamit ci principaux outils yi nga xam ne ak sukkandikukaay yoo xam ne ci ngeen di mën a jëfandiku ngir mën a am liggéey bu mucc ayib waaye tamit ngeen mën a diriger waaye tamit fexe ba daal di gérer. ak it yaxanal waaye tam ci tënk rek mooy ngeen a manager lépp ci ñàmbarte ci li nga xam ne mooy département yii ñu leen dénk l'humilité est la compétence.